bonsoir fidèles auditeurs et auditrices de la rajo du bonheur salaamaaleykum mbokku auditeurs euh, auditrices au Rewmi FM dalee na jàmm seen émission sans filtre. Euh, le rendez-vous de la jeunesse tous les mercredis sur Rewmi FM de 15h à euh, la délégation générale du Québec euh, Goumalo Dione attaché aux affaires culturelles et éducatives et toutes nos excuses pour ce retard on a mais mujj fee toog attaché en éducation donc on s'excuse ak euh, la rubrique actualité waaw voilà maa ngi leen nuyu di nuyu suñu invité di euh, jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi teewlu donc rapidement dañuy joxe tey actualité bi sans pourtant ñu faire commentaire ci li ñu war def euh, yi nga xamante ne fan yi nit ñi ñu ngi koy dégg ci ki nga xamante ni moom mooy chef de cabinet bi moom président Macky Sall mi wax ci li nga xamante ne dañ jëm ci muy élection yi dem sax ba wax loo xamante ne ma nit ñu bëri dañ koo jàppee des propos incendiaires yoo xamante ne mun na taal dëkk bi ndax dafa ne candidature ci élection yi nga xamante ni la am jamono ji muy ci élection locale ak élection législative yi donc mu ne foofu bu fa Macky Sall amee ndam mun nañu wax ne candidat wu 2024 bu wu bu fa amul ndam ndam yeboo ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom nañu lem seen dëbës te dem donc bu ne ay propos yoo xamante ni mun nañ koo jàppee ni mun na taal réew mi donc li ñu war def moom mooy soit mu excusé wu ci li nga xamante ni moom mooy euh, ci kanam sénégalais

magistrature boo xamante ni egguñ ci. merci ma Fall waaye mënuma cee bañ a wax. Euh, Mahmoud Saleh ce qu'il a dit il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. rawatina ñuy nekk euh, Benno Bokk Yaakaar ak mm. APR yi mm. parce que loolu la Sénégal yëpp xalaat Pape Gumalo Dione euh, merci d'être là euh, ma di la nuyu yow attaché aux affaires culturelles et éducatives euh, délégation générale du Québec à Dakar tey ay tubaab lañ fi dalal Mor Fall mm. <laughs> ay tubaab yu ñuul ba bàyyi ko mu nuyu suñu auditeurs auditrices yi Rewmi FM merci beaucoup Sylvie merci et merci tout le monde donc maa di euh, di remercier si invitation bi aussi di excuser wu pour le le retard tu le sais que dafa bëri trafic nag mhm. sincèrement mhm. Mhm. je suis vraiment désolé et puis euh, je m'excuse au nom de Marina sama beneen collègue bi parce que le forum s'en vient il faut que ñuy séparé wu ki def li ki mais elle est de tout cœur avec nous d'accord euh, délégation générale du Québec à Dakar nit ñi dañ koy dégg mais mooy lan est-ce que mën nga ci ñëw nga expliquer ñu. délégation Québec bi moo c'est-à-dire mooy représentation province Québec Québec mu ngi nekk biir Canada donc euh, c'est la seule province francophone en Amérique du Nord donc boo xoolee Québec dafa dañ ko dafa nekk biir Canada anglophone yi wër ko si suuf au sud y a les États-Unis mais boo xoolee loolu li muy yaatu yëpp ak Mexique xam nga bu ñu waxee Amérique du Nord Mexique Canada États-Unis yëpp a ngi même Haïti bi ñuy dégg sax ñooñu sont en Amérique du Nord ñu rek ñoo fa nekk. Mm-hmm. comme province francophone. donc bu ñu nekkoon tey réew état du ñu état moo tax Canada mooy état bi ñun province lañu bu ñu nekkoon état ñun ñooy ambassade du Québec comme ni nga déggee ambassade du France ambassade du Irlande ambassade du yeneen dëkk yi donc c'est la représentation diplomatique de la province du Québec ici en Afrique. Mmh. Voilà. Euh, quel est votre rôle yéen loolu rôle en fait c'est de c'est de renforcer les relations dañuy renforcer relations économiques yi ak relations politiques yi entre Québec ak fii. si loolu aussi am na ce qu'on appelle les, les relations intersectorielles c'est-à-dire lépp luy maanaam culture éducation immigration francophonie coopération et puis dans dans ça aussi faut expliquer ñun dañoo basé Dakar mais on couvre douze pays de l'Afrique francophone Mm -hmm. c'est-à-dire que déjà euh, Québec am na bureau boo demee Abidjan am nañ fa bureau boo demee Rabat am nañ fa bureau Rabat ñooy gérer tout ce qui est Maghreb Algérie Tunisie ak Maroc boo ñëwee euh, Côte d'Ivoire ñoom ñooy gérer le centre ñun ñooy gérer tout ce qui est Euh, ouest Afrique c'est-à-dire euh, mais Gambie si la bokk même si des francophones lusophone bi Guinée-Bissau si la bokk Guinée-Conakry Togo comme la une partie de l'équipe instant yi ñu ngi Bénin ak Togo mm. donc voilà mais c'est en gros on a virage très économique d'accord da ngeen yëngu ci immigration oui bu baax comment comment en en expliquant et puis en, expliquant aussi nit ñi que mun nañu voyage au kanada de façon très régulière en passant par les études wala en passant comme instant bi ñu ngi recruter vraiment beaucoup en ñuy def euh, mécanique industrielle ak euh, des infirmières ak euh, mécaniciens électromécaniciens donc loolu par exemple ñun loolu immigration lañ ko tuddee mais immigration pour dem liggéey c'est-à-dire que je donne un exemple tey bu doon ñun ñoo ngi nekk yi waa je pas fait de publicité waa Sonatel woo ñu par exemple. Mm-hmm. ne ñu dañoo soxla ay monteurs ñu yéeg si électriciens yu yéeg pour accrocher ay fil. ñun suñu liggéey mooy wuutal ko des gens qualifiés pour entreprise boobu donc loolu la ñuy tuddee immigration régulière bi bu dee si njàng mi comme temps ñu ngi génn si salon virtuel étudiant au Québec y a beaucoup de qui veulent étudier Québec mais souvent duñ xam fan la ñuy jaar souvent y a beaucoup d' agences yu fi nekk déjà nu on est le gouvernement du Québec donc on n'est pas une agence lépp lu ñuy def c'est gratuit par exemple mm-hmm. comme euh, webinaire bi ñuy organiser jeudi demee am naa benn webinaire samedi salon bi la woon on a eu partout 5000 Mais non, immigration, je dis, pour prendre l'avion, tu payes là. Allô C'est pas gratuit. Je dis, les, les, sont gratuites. Si tu viens voir pour que je te conseille, c'est gratuit. Si tu dois appliquer pour nous dire le job est c'est gratuit. Tant que tu un test pour nous dire électromécanicien, tout ça, c'est gratuit. ñoom ñoo lay wutal toutes les démarches boo nga mais duñ la jëndal duñ par exemple le billet d'avion mm-hmm. comprendre nga si c'est les entreprises bu dee élèves yi la c'est toi qui paye l'université mm-hmm. parce que les universités là-bas c'est pas gratuit non Donc quand je dis qu'on facilite, c'est-à-dire on facilite au niveau des informations. Mm. On, a, on peut aussi te diriger vers les bourses. Pour les étudiants, il y a les mm. bourses d'excellence, les bourses euh, d' exemption. mais pour ce qui est de de de l' immigration parce que la plupart si dëkk yooyu lu mel ne Canada ak li nga xamante ni mooy seen dëkk bi nga nekk par exemple mën nañu wax ne seen immigration yi ñu proposé ce sont des immigration yoo euh, lii jeexee da nga ñibbisi waat. Oh. ndax ndox noonu la wala mu neex nekk fa éternellement liggéey du genre wala ça dépendra ci liggéey parce que nit ñu ne la contrat bi lii la mais bu jeexee tu es obligé nga ñëwaat. Euh, pas pas dans notre cas. Euh, Québec si bopp nit ñi. Mmh. Québec c'est aussi l'une des l'une des provinces les plus accueillantes daaw rek on a accueilli ay mille treize mille bu ngeen gisee ñiy dugg Québec par anne te duñu kaas duñ ko jooy fenn comme mosoo dégg ñu naan ay Québec a ngi jooy parce que dafa bëri ñuy ñëw comprendre am na lu ñuy wax réten politique de rétention de la mais d'œuvre te ji yow comme jeune nii ngeen dem foofu parce que la population vieillissante population dafa màgget ok donc ñun lu ñu soxla mooy ay jeunes bu ñu fa ñëwee mais on y mécanisme pour ñu téye la cest à que tey boo jàngee sax ba pare am na benn 36 mois boo xam dañu la koy may statut la boo xam ne yow da ngay toog nga xoolagum est-ce que da ngay toog est-ce que da dem nga liggéey. parce que faut travailler l'immigration est foofu je te cache pas. Mm. c'est pas boo gisee c'est très sélective là mm. comme comme immigration c'est-à-dire c'est pas n'importe qui. moo tax ma la aussi c'est pas gratuit c'est du win-win ñoom aussi dañ soxla c'est pas yow juste le jeune qui a besoin d'y mais ñoom nga ñëw. D'où cette politique de rétention de la main-d'œuvre, d'où cette possibilité de rester après les études avec ce qu'on appelle le PEC, programme d'expérience québécoise bi kooku boo ko amee y a de fortes chances nga jàll l'autre étape qui est la résidence permanente après la résidence permanente ce qu'on appelle maintenant la citoyenneté foofu ngay devenir un Canadien mm -hmm. c'est-à-dire c'est le cursus c'est tout tracé boo ko jaarale yoon tu peux arriver étudiant après nga ñaan permis de après nga ñaan statut résident permanent après tu deviens un canadien. Hmm. mais mais mais loolu ki nga xamante ne peut-être mën nañu wax ne euh, soxla nañ ay électromécaniciens yoo xamante ne bu na ñëw pour une de six mois six mois yi jeex ndax kooku. non da bu amagul bu amagul affaire permanent boobu ndax il n'est pas régulier au Québec. du on te laissera pas ce choix nga yërëgi amul. Hmm. on te bu amee. gaaw dañu jox automatiquement il faut parce que c'est c'est très organisé. Hmm. c'est pas parce que foofu laa mais c'est un pays hyper organisé. d'accord c'est je dis pas qu'il y clandestin mais bariwul. ils savent où tu es. Mm. comprends nga même clandestin t'arrives tu es malade on te soigne. Mm. même bu dee amuloo kayit on va te soigner. Mm. dans la rue y a aucun policier bu sañ taxaw la ne la an loolu gis nga ko si beneen dëkk. Europe si t'as fait Italie Suisse ma j'ai habité en Europe là. cest njëkkee arrêté dans ma vie à Genève. stagiaire la ma policier da taxawal ma taxaw mu teg sama loxo si capot bi man ak benn copain jël sama sac yulli ko si capot oto bi ba pare j'ai commencé à pleurer même Sénégal fii policier mosuma fi arrêté comprendre loolu amul amul Québec. Hmm. du kenn du la wax ñibbil boo paree pour ñibbi t'as décidé de finir tes études mais tu peux rentrer chez vous mais si t'as pas si boo ko doxulee nag ni nga ko war a doxee mais ils hmm. peuvent te rapatrier. c'est-à-dire boo ñëwee tu renouvelles pas tes papiers tu renouvelles ton permis tu renouvelles pas ton permis de séjour ni ton permis de travail ni tes permis d'études ben là tu citoyen irrégulier. Ah. la communauté sénégalaise oui y beaucoup. ah y en mais seen façon de faire la jël ay jeunes filles nga xam ne parce que tey. boo nee que t'allais me euh, boo nee liggéey <laughs> tout le monde veut partir parce que on sait que Sénégal fii lu fi nekk ñëpp xam nañ réalité mais si vous amenez si vous amenez toutes nos têtes. non loolu ah, du ah, le Sénégal ah, ah. la fuite ah, des cerveaux. c'est ça tu sais man je suis sénégalais je viens pas ici pour wax dañuy jël tout la force vive yóbbu leen Québec. on mais yow waa Québec ngay liggéeyal. ñoo may fay. Mhm. pas l'état du Sénégal qui paye. <laughs> Oui, mais, mais, mais, mais j'ai mes origines ici. Je sais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mm. OK Donc, je te dis que ça, on n'est pas là-dedans. La preuve, on nous a, on nous a déjà dit, état bi mënul jël ñëpp nañu wax dëgg mm. l'état ne peut pas absorber ñiy gën université je sais pas j'étais allé à l'université là man temps yi maa dem parce que ma événement il plus de quatre-vingt-dix mille jeunes qui sont là est-ce que l'état à la capacité d'absorber ñiy gën yëpp objectivement c'est non Nous, on, on est là pour aider peut-être l'État à régler le problème du chômage. Chômage de ferme, on en parle. Et puis notre... les jeunes à immigrer. Mais il n'y a, boo si génnee boo nekkee fii tu fais rien. t'as les possibilités non on veut pas ñëpp dem. et c'est pour ça on est en de rectifier l'état on est en train de vouloir travailler avec l'État du Sénégal. Mm. pour que cette immigration soit win-win cette coopération soit euh, mutuellement profitable. Mhm. comme li ñu bëgg léegi mooy on est en train de penser à créer avec l'État du Sénégal des centres de formation technique et professionnelle. Mmh. comme on dit qu'on va former dix je prends un exemple. Mhm. dans ces dix le Québec peut prendre trois Québec mën na si jël cinq. les cinq meilleurs. mais affaire kii bi non <laughs> mais tu sais. live fight la c'est à ton état d'être man je, je mhm. yi c'est à toi de te défendre. Mm-hmm. te Sénégalais man je je défends le Québec par exemple yow da ngay xëcc sa côté ma xëcc sama côté. Mm. bu ñu formé d'ici mais ñun dañuy jël cinq ngeen Sénégal jël cinq. boo tam laaj ba xam cinq meilleurs yi gën a tuwee ngeen. ñu gën a cuune ñi ah. dars dars jël. li wax de mënul génn. <laughs> non du deñ. non man je et que je man dama dem ça fait vingt ans ma nekk si àll bi je suis revenu au pays. non je pour pour maa ngi nii di toog ak yéen di joxe ay des infos. Mhm. donc faut revenir au pays. j'ai jamais dit que jeunes yi nañ dem toog man j'ai tout pour rester au Québec. non da nga ñëw pour yóbbu leen. <laughs> les gens nous entendent là di pas ça c'est pas vrai je fais pas ça on vien pour chercher la main-d'œuvre parce que notre population est vieillissante ça je cache pas nos entreprises ont besoin suñu entreprise dañu soxla loolu du ma on fait le win-win, vous en gardez, puis nous on apprend. Mais on n'est pas venu ici pour enlever les forces vives. Et on les incite à revenir, s'ils veulent revenir. C'est tout. Ku bëgg dellu si da ngay dellu si. <laughs> N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Après ça va accomplir mission bi la jox nga soog a mën a ñëw. non mais est-ce que tu sais que tu peux rester au Québec autant que tu nee naa ça fait 22 ans ma nekk foofu. Mm-hmm. mais mais comme man fi ma ne. après mission mooy comme ça ma ni jël nañ la yóbbu nañ la fi nga xamante ne moom mooy Québec. Mhm. pour deux ans nga liggéeyal ñu. ci benn ci biir deux ans yooyu munoo munoo demaat. donc tant que deux ans yi jeexul. munoo munoo munoo munoo. non on fait pas ça. mën nga mën nga dagg sa sa mhm. ah, mais bu ñuy def recrutement yi faut venir faire des reportages. Mhm. on leen di jël écoute non c'est c'est pas parce que je défends ak ANPEJ dañuy liggéey ak ñoom sont en face. ANPEJ dañuy andi ay nit temps ngi recrutement on a reçu ay donc ñu dañuy ñëw même même test yi fii lañ koy defee yow léegi bu dee parce que aussi ay critères la bu dee yow tu fit sur les les critères c'est-à-dire fit mooy bu dee waaw comment on fit bu dee bu dee si biir critère yooyu yow mun nañ la jël écoute on te prend on on t'aide pour nga def sa immigration nga dem liggéey la bu dee da nga toog foofu gisoo dara ou le froid te fatigue sandaay bi daf lay sonal mais tu dis je retourne au Sénégal kan moo lay tere nga dellu si. Hmm. c'est pas un pays comme tu am na ñu fay dem commencé jàng affaire bi doxul ñu arrêté ñibbi si am na ñu fay dem liggéey doxul ñu ñibbi si y en mais kenn mënu la fa téye parce que yow da nga da dem liggéey bi neexul la nga toog no ça pour répondre à ta question c'est non. waaw mm-hmm. mm. ñu ñëw si première édition du forum international sur l'entrepreneuriat. oui. oui euh, kañ la ak euh, naka la euh, forum bi di demee. forum bi c'est le 2 et le 3 prochain. donc l'idée euh, vous savez Québec dañu am benn force aussi au niveau de l'offre éducative la am nañ lu bari loo xam ne formation technique et ak entrepreneuriat c'est-à-dire c'est soo Québec nga mun a ñëw très tôt jeune tu deviens entrepreneur mun nga jàng tout de suite formation nga def technique professionnelle bëgg a tijji sa benn garage mécanicien tu le deviens donc ñun expertise boobu la bëgg a andi parce que on n'est pas comme li ma wax sànq rek dem naa université donc bu ñu waxee entrepreneuriat bi c'est-à-dire que très nit ñi mun a proactif mun a hmm. devenir leur propre boss mun a créer des affaires et ça il au Sénégal forum bi bii bi loolu la et puis wane aussi des expériences qui ont réussi on va avoir seize entrepreneurs yu jógee Québec ñëw ak des professeurs qui vont croiser ici aussi des entrepreneurs donc ay panel la panel yooyu gars yi ñuy toog échange l' expérience québécoise l' expérience sénégalaise y' a aussi la Côte d'Ivoire qui va être là Cameroun. donc moo tax ñu tuddee ko forum international donc c' pour montrer faire un échange en fait. Mm-hmm. en expertise entrepreneuriale et formation entrepreneuriale. Mm-hmm. donc on est en partenariat avec l'UCAD que je remercie beaucoup le recteur d'ailleurs monsieur Mbaye on est en partenariat avec l'AUF agence universitaire la francophonie Confemen IFEF e donc euh, le GAF les amis de la francophonie mais c'est l'idée par la délégation générale du Québec Mhm. donc loolu mooy loolu mooy objectif bi. d' accord euh, mais j'ai vu que nee ngeen vous offrez cent places. à des oui. étudiants. pas à des étudiants à à monsieur madame tout le monde comme on dit à la société okay. parce que euh, man bi ma koy organiser je m'attendais pas à ce que institution yëpp ñëw l'idée c'est de voir le mécanicien wala wala maire bi jaay gerte ci mbedd mi ñëw parce que entrepreneur la aussi. loolu tax benn instant dama ok on peut donner aux aux gens cravatés aux femmes qui parce que ñooñu rek ay wax fii la y y a des entrepreneurs invisibles au Sénégal ñëpp ay entrepreneurs lañu mais doo leen gis te pourtant c'est des entrepreneurs dans l'âme loolu lañu xam donc ñooñu moo ne 100 places yi on s'est dit regarde on va ouvrir pour 100 places ku bëgg a école yi ci forum bi ah, bi ñëw ñëw participer uniquement c'est en conseil gratuit. ok <laughs> donc tu comprends ils viennent ils participent ils échangent bëgg aussi ñu réseauter. Parce que y a, y, a, y, a, y a des jeunes ici qui sont des entrepreneurs, ils créent des trucs en électricité, en plein d'affaires. ñooñu mun nañu réseauté même fii nii l'ANPEJ va être là DER daf fi nekk ministère de l'emploi aussi dañ fi nekk xam nga ñun aussi one est là ambassade du Canada donc ak la ce que j'appelle la société civile puis man ñooñu ñoo ma gën a intéressé en fait c'est c'est eux autres qu'on doit voir ce monde là que je trouve que c'est des entrepreneurs comme je les appelle invisibles war a jox on doit sur Mmh. donc looloo tax ma décidé ne on ouvre pour cent personnes et je pense j'ai espoir que je vais voir. Mm-hmm. ok man ma ñëw tuuti ci forum yi parce que je pense que chaque année dina gis ne ay forum dina ko organiser au Sénégal. ngir mm-hmm. jeunes yi ñuy wax ci wàllu entrepreneuriat wàllu emploi. man je me dis que est-ce que nekkul juste rek pour faire rêver les jeunes. ci wàllu parce que man euh, y a beaucoup de jeunes qui veulent euh, se lancer dans l'entrepreneuriat ñu ñëw ne la entrepreneuriat comme ça kii fii la jaar def na lii ak lii ak lii ak lii mais ñooñ nga xamante ne peut-être que jaar nañ fenn fi. ñoom ba ñuy réussir ak jamono ji fi mu toll je pense que c'est pas la même chose bu ñu prenee exemple ki nga xamante ne moom moom Sedima ay ñoom Serigne du genre affaire yooyu ba ñuy entreprendre jamono jooju c'était beaucoup plus propice pour ñu mën a développer seen ay seen jamono ji nga xamante ni Euh, bu ma defee dara wala kenn def ko man au lieu ba jéem a xam li nga xamante ne yooyu mu nga def dalaa ci mën a mën a andi comme plus wala boog changement pour bu développer mais je copie la arrivé à quelques mois mu mu daanu donc yéen euh, ban ban ban euh, mbir ngeen indiwaat ci lu bees seen forum bi parce que bu ñëpp ne forum de l'emploi ku ñëw rek copier la même chose dajale jeunes yi neen way telle personne a a a def na lii ak lii ak lii je que c'est juste pour pour faire rêver les jeunes après ñu toog waxtaan euh, ne man j'étais j'étais dem naa hôtel tàngam photo de affaire après mu jeex même affaire résultat boo ngay wax naka lay demee parce que ndax da ngay jël ñi xamante ne jeunes yi nga xamante ne ils veulent entreprendre wàllu transformation wala ñi xamante ñoo def ci wàllu mécanique euh, fabrication de voiture affaire yooyu ngeen booleeg dëgg ak entreprise yu mag ñoo nekk Québec ñoom ñu jëm leen teg ci yoon ne nii nga war a def pour mën a développer mbir yi wala boog non yaa ko mën a expliqué a <laughs> mais non je très pertinent sa réponse mooy gën a kii mais si on n'est pas là on n'était pas là on voit on veut pas déjà ça va même pas de des, des présentations magistrales comme ñëw teg ay PowerPoint wax ba doyal non mm. institution yi bokk yëpp dañ leen ne ñun on veut concret lan ngeen def la UF lan ngeen def ban femme ngeen fi accompagner dans un village bu mu réussir on veut voir des réussites on veut voir des échecs aussi parce que du ñëppee réussir ok ce qu'on veut aussi c'est de les lignes wax naa ko sànq j'ai des entreprises québécoises yu ñëw am na ay entreprises yu québécoises yoo bi noonu yëpp ni ñu ko defaree ak code yëpp la personne qui a créé ça va être ici kooku mun na collaborer ak yow jox la son expertise nga jox son expertise et ngeen garde link bi quand je te dis que j'ai 16 quand compagnie yu fii ñëw ak yow ay start-up c'est pour créer ce link là et puis yi dañuy des après donc je veux aussi nous aussi que mu am benn réseautage benn link entre le Québec et ici hmm. ok euh, l'autre question bi nga wax serait pertinent c'est-à-dire que du ñu def forum bi rek dem il va y avoir des conclusions qui seront de ça de quoi nous avons Et pour te dire comment nous voulons aller vers les populations, ça, ça va être l'idée par les étudiants de l'UCAD. Mm. Tu sais, l'aspect bénévolat, j'ai insisté avec le recteur Neko, nous voulons organiser dem. Je veux que tu me donnes 15 jeunes. Nous def l'action bénévolat parce qu'il faut que nous bokk la communauté la c'est tout le monde on peut pas toujours parler de l'État l'État du gouvernement il faut que nous ñu bokk et c'est cet exemple là ñu andi tout ce leadership mm-hmm. que à travers sa communauté à travers sa jeunesse mhm. donc ñoom ñooy ñëw bokk ci organisation bi et c'est les étudiants qui vont prendre note de tout ça et qui vont en tirer des conclusions mhm. que nous allons lire et laisser aux gens après mhm. mais l'idée c'est ce linking là qui peut y avoir entre les entreprises entre les bailleurs aussi québécois qui peuvent venir peut-être financer un jeune entrepreneur mais link boo xamante ne mën nañu wax day am avantage parce que boo ngeen paree euh, ngeen am ngeen cent sièges donc cent sièges est-ce que Euh, euh, affaire bi amoon euh, à l'UCAD telle personne génn na ci ndax ndax ndax loolu mooy objectif parce que man loolu laa bëgg parce que bëri na ay problème na fi reste tu resteras avec nous je veux qu'on garde le contact bi du ma du ma wax ne ça c'est juste pour pour pour neexal parce que moom mooy moom mooy sama directeur mais moom dafa def loo xamante ne peut-être que ñeneen ñi xaatuñ ko moom forum bi mu defoon dafa jël jeunes yi au lieu ngay jël CV naan da ngay da ngay dépôt affaire dafa la met directement ak ki nga xamante ne moom mooy entre moom mooy euh, euh, recruteur bi nga toog mu mu dafa ak yow li nga la soxla soit tu réussis ou bien euh, réussir am na ñu bëri ñoo xamante ne réussir nañ am na ñu décroché le jour des contrats ndax yéen loolu lool mooy objectif bi. ki nga xamante ne moom mooy jeune bi am am projet mu ñëw projet bancable le même jour mu am mbir bi wala boog ngeen topp ko d'une façon boo xamante ni d'ici deux ans tel jeune jaaroon na ci forum bi ñoo accompagné ba am na léeg-léeg lii moom mu ñëw confirmer loolu ci kanam nit ñi. non non il hmm. faire la part des choses. on dit pas aux jeunes de venir avec des projets qu'on va le financer. c'est une première édition. Hmm. parce que boo dee entrepreneur ki nga xamante ne entrepreneur projet lay andi. ñëw taxaw ne way j'ai un projet sur ça il peut venir pour échanger l'expertise. Hmm. il peut venir pour échanger ay cartam puis garder contact ak l'autre. et je le dis encore c'est que la, la délégation organise ici. Mm. Nous, on est très jeunes comme délégation. Ça fait juste 4 ans qu'on est là. Moi, mm. ça fait 8 mois que suis ici. Donc, on, on de, de, de, se positionner. Et je pense qu'avant qu'on se parle tout là, est-ce que vous entendiez parler du Québec Est-ce que dans une dégnion à Québec mm. Peut-être que non. Le Québec n'est pas connu. boo génnoon fii léegi mi joxe micro trottoir essayé ça nga ne Québec fan la wala lan kenn mos na ma ne Québec c'est quoi c'est quoi le Québec on a du travail à faire donc faut le suivi, on fera ce qu'il faut pour créer ce pont entre les entrepreneurs québécois et, ces, et les entrepreneurs d'ici. Et peut-être les bailleurs aussi. Mhm. mais faut nous laisser le temps. waaw mais mais parce que parce que sénégalais xelam mooy. boo foofu laa bëggoon ñëw sax je vous dirai leen ñu financé leen. parce que sénégalais boo nee boo nee bailleur rek mu dem andi projet ñoo teg ne. bailleur yi ñëw te ñoom le mot bailleur je pense que dañoo yaakaar mooy kii ñëw jël xaalis bi xëpp loo ko. après il bàyyi il donne l'argent. waay non c'est <laughs> le c'est bon mais problème finance loolu mooy problème jeunes Euh, presque jeunes yëpp tey am nañu son porteurs de projet am nañ projet am nañ ay rêve am nañ ay ambition euh, mais euh, problème bi mooy finance yéen est-ce que volet boobu bu a ngi ciy jël prendre en compte. pour le forum. pour ce forum si je le répète encore on finance pas on crée des liens. Mhm. mais en entreprenariat je dirais et en tout ok on a ce qu'on appelle au bureau ce qu'on appelle le FIL le fonds d'investissement local. Ça, c'est un fonds que le Québec a et le, le fédéral, le Canada. Nous, ce, fonds, c'est pour soutenir des projets locaux en entrepreneuriat. Mmh. Vous viablez, c'est un comité qui se réunit. OK Ça peut être dans le domaine culturel, environnemental, ça peut être dans le domaine euh, économique, mmh. santé. OK C'est des fonds qui existent. Tu déposes ton projet, comité bi dafay réunir. Si ton projet est vraiment viable, ben on le finance. Nous, l'on l'a mais pour le forum boo fa ñëwee andi sa kii ne ma pas on l'a pas. comme financé nañu financé nañu des femmes au Québec des femmes c'est ça que je te dis le FIL. le le le fonds d'investissement local. Mm -hmm. c'est pour des projets locaux. Okay. et hmm. daaw lañ ko jot. c'était un fonds de d'une trentaine de mille dollars. Mm -hmm. et puis on a vu comment ça marchait ANPEJ équipé nañ leen. y des femmes ça s'appelle Women in Mining ñu ngi Kédougou. ci or bi la ñuy liggéey on est allé jusqu'à Kédougou pour les appuyer. Mm. donc ce fonds existe pour la jeunesse sénégalaise. mais mais les représentants de ce fonds euh, dinañ ñëw ci jour forum bi. c'est nous dinañ ñëw c'est nous. mais mais mais je vous dis pas de avec un projet jox ñu ko. Mm-hmm. on est là on peut se revoir au bureau on pourrait parler bugguma information boobu jàll. <laughs> gars yi ñoo fa ne ma sa waay yaa ñu waxoon. xaalis amu fa mu leer. <laughs> mais ce fonds existe au niveau de la délégation. <laughs> Uh-huh. ouais et c'est des dépôts de candidature. Uh-huh. donc donc ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy seen seen partenaires yu mel ne ANPEJ yu mel ne DER yu mel ne ñi nga xamante ne moom mooy yenn institutions yi nekk Sénégal yi def promotion emploi yi nga xamante euh, yu bëri daanaka euh, buñ fa faree di dem d'habitude ñu si bëri dañuy dañuy am déception est-ce que euh, am na beneen beneen façon liggéey boo xamante ne wax ñoom pour buñ ñëwee ñu am taxawaay boobu parce que jeune bu mel ne man ma ma man déposé naa DER projet kenn faalewu ma dem naa ANPEJ kenn faalewu ma donc jeune boobu nga xamante ne dégg ni ñu ne tel tel kii dina ñëw ñëw ci biir kii bi peut-être sax dañuy dañuy ñëw jàppe yooyu seen seen ay kii yi seen ay stand <laughs> yooyu jéggi na parce que dañ naan ñi sama réew lañ nekk bàyyi ma dem Québec rek parce que Québec moo moo moo ëpp chance bu mu am fa dara mais ñun on travaille beaucoup ak ñooñu deeru ngay wax ANPEJ waa UNACOIS nañ fa nekk ak yooyu yëpp et la façon dont on travaille avec eux vraiment et on le du concret c'est-à-dire bu ñuy wuti ay jeunes dans les emplois dañuy jaar si ñoom mm-hmm. ok on, on, c'est comme Donc les jeunes peuvent aller leur, leur, leur parler. Je dis Grand Tamsir, que je connais très bien, directeur ou, de, euh, DG Bou Anpej, avec qui j'étais à Montréal, il a été invité, mm -hmm. Donc les jeunes Sénégalais peuvent s'approcher de lui. On est en partenariat aussi. Il va d'autres gens qui vont être là. Il va y avoir des représentants des, entrepreneurs de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas aller voir, un, je donne un exemple, Alain qui comme le, le, le grand le Youssou de, de, de, la Côte d'Ivoire. Forêt en termes entrepreneur d'Afainek. Le gars, il donc link yooyu aussi foog ñu def ko et après le suivi aussi l' entrepreneur doit être autonome je dis que ñun duñu leen jàpp si loxo tamit après xam on aime ça l' autonomie non on va faire le suivi. mais je non, mais benn jeune autant d' argent millions financé ko doo leen si mais si on fait le suivi comme Women jour li ñuy def ñu ngi ñuy envoyé ay affaires on a fait ci on a fait ça mais je le répète encore on vient de commencer nos activités. Hmm. on est vraiment là depuis quatre ans et puis l' équipe c' est, on est en train de se renforcer. Donc, moi, je te dis, ça fait pas an que je Donc, euh, Mais, euh, voilà, laissez-nous. Sur période de peu... 4 ans, combien de jeunes Non. Non, non, non. Sur période de 4 ans, on n'avait pas déjà une section immigration. Okay. Immigration, c'est récent. Section éducation était là avec culture, coopération, mais immigration, c'est récent. Ce qu'on fait là. Journée, journée Québec, c'était la première année. ci ci wàllu mhm. ci wàllu diplomatie ñëw si tuuti parce que je pense que damay faral di gis lu bëri bëri ñu naan euh, tel euh, dëkk bi ak dëkk Sénégal euh, signé nañ benn convention wala benn partenariat mais man booba lay gisaguma ko parce que la may gis ne ministre de l'économie day faral di di signé ay convention et dëkk yu bëri mais man gisaguma ñu ne tel convention signé nañ ko ci diggante Québec ak li nga xamante ne mooy Sénégal ndax hmm. ndax diplomatie bi dafa développé gu lu bëri parce que dëkk boo fa nekk dëkk xamante ne wala dafa sori. Hmm. dafa bees dafa jeune. mais signé nañ convention euh, en culture. oui ak la ville de ak la ville de Dakar. Hmm. ça c'est ça ce qu'on appelle les résidences croisées. te artiste bu bëgg a dem euh, da am vis-à-vis Québec wala beneen artiste bu bëgg a ñëw hmm. y a des fonds qui existent pour des créations mutuelles. donc ça on l'a signé avec la ville de Dakar. et aussi on donne on donne des bourses. ça ça on le dit pas. le Québec offre. à peu près cent bourses par année des bourses d'exemption à la jeunesse sénégalaise est-ce que loolu mos nga ko dégg voilà am na bourse yuy jóge fii ay jeunes yoo xam bu ñëwee Québec tu payes pas tu payes pas dindi nañ la lu mot 6 millions. Mm. ce qu'on appelle des bourses d'exemption. Mm. des coopérations ça existe. Mm. mais peut-être qu'on fait pas promotion on n'est pas des français là excuse ce que je veux du ñu wax lu bari. peut-être loolu moo tax nit ñi du ñu gis. mais y a des y a des relations qui existent. mais mais ci wàllu jeunes yi ñi nga xamante ne yow bëgg a jàng foofu. est <laughs> que du mel ne comme Canada ñu la waaw pour nga du Canada il faut nga sa compte am temps def tous les dispositifs pour pour mën a ñëw est-ce que amul les les mêmes dispositions yi jël nañ ko comme comme pour Canada euh, comme ni ñuy defee ku bëgg a ñëw jàng si il faut nga am compte bu am lii ci xaalis. lii mooy conditions yi. est am na lu aussi. parce que sénégalais ñuy dégg. nga Sénégal day dégg day rek ne ne ne dama na. ndax jeunes yi ndax jeunes yi nga xam ñoo ñuy déglu ñu mën a xam yan conditions lañ mën a mën a ñëwee foofu parce que boo boo waxee lii rek ñi ñuy dégg suba suba nga gis leen 100 jeunes dinañ ñëw ne dañoo bëgg a jàng ji Québec am na ay étapes te loolu moo taxoon ñu def salon bi passé mm. c'est cinq étapes mm. bu dee da nga bëgg a jàngi il faut nga wut d'admission bi yaa koy wutal sa bopp université publique wala privée di nga fay ba bëgg a dee dafa cher mm. donc c'est université publique déjà Québec dix-huit universités ñu ngi taxaw keroog pour recruter ay nit dix-huit salon boobu donc ñooñu boo man Sherbrooke laa jàngee université Sherbrooke moom laay wax fu nekk boo ñëwee nga bind université Sherbrooke nga leen dama bëgg a def médecine waaw kon ne jokkoo ñoom ñu jox la demande d'admission bi ñu accepté ko après nga def say démarches permis d'étude après nga def euh, visa il faut nga def ay visa yooyu yëpp mm-hmm. mais si biir visa boobu dañ lay laaj ce qu'on appelle les frais de subsistance mm-hmm. mooy fonds boobu ngay wax mm-hmm. que tu dois déposer dans un compte bu ñu ko gis pour ñu mun la accorder le visa pour nga dem parce que effectivement am na ñu ko doon def mais le problème mooy boo ko defee ils vont jamais te laisser nga tumuranke li ñuy wax c'est-à-dire que c'est l'université qui était obligée de te mais boo fa ñëwee tey sa xaalis jeex yaa yaa tellement de service am na ay services yu ñu lay joxe yére nga sol am na ñoo xam ne dañu lay jox nga lekk am na ñoo xam dañu lay héberger les services existent mais maintenant le fédéral est beaucoup plus dafa service bi mm. léegi il vérifie parce que ñu on donne pas de visa nous on est provincial mm. mais bu dee da nga bëgg ñëw dëkk suñu province y a ce qu'on appelle d'acceptation du Québec mm. kooku tamit dañ la koy jox bu dee da ngay dem dëkk sa anglophonie yi day soxlawoo loolu donc bu la fédéral joxee ñun il faut ñu accepter la mais ça c'est des démarches mm. Mm. mais l'argent c'est sûr qu'ils vont demander des fonds de subsistance même yow tey booy dem Gambie mm. mais saa waay di nga xaalis sa poche xanaa ah, c'est la même chose mais mais intervention bi yéen ci ban côté lañ ñëw parce que inscription bi président bi moo koy defal boobu moom mooy def démarche yi ba ñuy accepté ko yéen ban ban ban côté ngeen ñëw bu mën a yombal dem kooku diri ñu oote déjà nañ la diriger si université beeg yooyu yëpp nañ la jox tuyaux yi pour bourse yeeg yooyu on peut te montrer où aller chercher des bourses mm-hmm. comme bourse yi ñuy joxe au niveau de la direction des bourses on peut te diriger vers là mm-hmm. et maintenant au niveau de l'acceptation pour Québec bi là aussi Notre, non, mais oui, c'est nous qui acceptons, c'est le gouvernement du Québec qui va te donner ce qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec. Parce que c'est très autonome. ñële ñooy ñooy grand yi ñoom mooy waa Canada ñun ben on peut ñooy ñooy boo yeeg yooyu mais quand vous venez dans notre province il a des exigences à suivre permis d'études yooyu yëpp xam nga mm. mais c'est des étapes ah. mhm. euh, euh, visa bi yi ñuy wax souvent ay ay visa visa mooy dernière état ci démarche d'immigration loolu la nit ñi fàtte. Mm. d'accord mooy bu lépp taxawee daal visa moo ci des. mais voilà d'accord ak euh, volet culturel bi volet culturel bi naka lay demee ak artiste bi. ak artiste bi ok comme la frontière dañu tëjoon. temps yi frontières yi tijji nañ déjà j'ai deux artistes yu war a ñëw man moo xool ici jóge Québec jóge Québec parce que là les fonds waa calque ce qu'on appelle euh, calque j'ai oublié euh, wala euh, aar eh j'ai oublié ak CAC ñooñu ñooy joxe c'est aux autres qui subventionnent parce que dafa am ay mécanismes de financement yow l'artiste tey bu dee da nga bëgg euh, conseil des arts et des lettres du Québec calque wala conseil des arts du Canada ñooñu gouvernement bi dafa jël xaalis jox leen ne leen yéen lépp luy mobilité internationale suñu artistes yi yéen a koy gérer. Hmm. donc man bu ma artiste contacté David Marin démb rek bind ma allo Pape parce que man je le représente ici je représente la culture ici donc dama bëgg ñëw Dakar nan lay demee. man je t'appelle Mor en tant qu'artiste ma ne est-ce que tu veux recevoir j'ai appelé Yoro Ndiaye j'ai dit directement direct j'appelle Yoro est-ce que tu veux recevoir mon artiste David Mar Yoro ne ma waaw ma léegi lui il va être pour sa mobilité mu ñëw ci studio Yoro Yoro Yoro accueillir ko ci studio am ñu def benn composition moom mu accueillir Yoro fa mu dëkk mu nga dëkk nag sa àll ba xaw ma ko mu ngeen nga ne ay mbadaxun rek si foofu mu mm. accueillir ko ñoom ñaar ñu def création maintenant après il nous présente la création mm. d'accord comprendre donc c'est ça le rôle mm -hmm. mais il y a qui existent mm et ces mécanismes la je sais pas si ça existe ici mais je sais en place Mhm. ok super euh, ce mot de la fin Pape on est à deux minutes de la fin. merci. Mm. et euh, vos questions sont toujours pertinentes. puis le mm. forum on l'a ouvert. c'est sur mm. ma page. Euh, Facebook. Vous pouvez aussi aller sur la page euh, Délégation du Québec, c'est Québec Dakar. Mm C'est 100 places limitées, donc premier arrivé, premier servi, si vous voulez assister à ça. j'espère qu'il y aura am na benn boo am donc ma koy jaajëfal saa su ne parce que euh, information yi am solo lañ fi jëlee ci loo xamante dina soxal ndaw ñi ma am benn bu may ñaan rek état bi lu ndaw a ndaw à deux minutes muy suñu jeune jamono ji soob nañ trop pari foot état bi Sénégal si jël njëriñ xale ñi ngi yàqu ñi ngi nekk des parieurs alors que le Sénégal n'a pas besoin de jeunes parieurs loolu laay jeexalee di saa su nekk. merci beaucoup Morphal. merci à euh, Pape Goumalo Dione délégation générale du Québec à Dakar attachée aux affaires culturelles et éducatives merci Adama pour la mise en onde technique euh, merci à nos auditeurs.